fait que bu fekkee da nga nekk rap ba pare tontu ba pare defoo lu rapport yi di def mais li ngay def lu yëfu kuy kuy kuy way ay mbalax la. mais freestyle bi tontu na ko de. loolu d' accord naa man d' naa li nga wax de. loolu du waxu. mais voilà mais non wax yi. c'est très important li nga wax parce que tey yow li ngay wax nii mooy tax nit ñi di xam. Mhm. tey boo questionné woon tey man du ma la du la tontu ba nit ñi di xam. c'est kon li ngay def yow yaa ngi ci say norme mhm. mais du tee tamit ñun tamit lu ñuy xalaat après ñu wax ko ñun ñii tamit. effectivement waxtaan la mais waxtaan la quoi fii amagul a jóg xaaral xaaral. Ah, d'accord vas xaaral da bàyyi ma développer fii tuuti kay après bon nga soog a dugal sa question non tamit xam nga duñu am li ñu bëgg quoi. bon rab bi nga rab pourtant ci ñaari définition lañ koy lañ koy lañ koy définir. Mhm. ñenn ñi dañ lay ne euh, euh, euh, rab air bi mooy révolution mhm. ah African people am ñoo xam loolu la ñuy wax. Mhm. am ñoo xamante ne A ah, bi dañ koy def ci Amérique American people la ñuy wax. ñaari définition ku nekk rek da nga koy jël sa voilà ni koy ni nga koy indi sa règle bopp te génnul génnul ba léegi li ñuy wax. parce que boo seetee ñaxtu la rek quoi. li ko indi ñaxtu la dañuy fitnaal nit ki mu dem ba benn moment mu révolté jóg di wax di kebetu loolu mooy rap quoi. alors l'idée c'est c'est de c'est de de promouvoir sa album bi sa album bi. Mhm. lan ñaata ñaata parce que amuñu chance au moins dégg au moins benn son on aurait aimé au moins bu ñu amoon benn tur. léegi waaw ñaata son moo ci nekk ak ak yan thème nga ci développé. neuf titres moo si nekk. Mhm. premier euh, titre bi écotrip la Moussa yaa fi ne la mhm. deuxième euh, titre bi euh, mooy Bala Seck benn waaye la comme ni sama waa ji xam naa dina ma dugal ci domaine boobu quoi nee na waroo woy ay nit waroo nangam nangam. Mhm. bon dañ ko war a def. dañ ko war a def c'est parce que nit buy wax lu ko metti rek na wax ay bànneex tamit. donc man Balla Seck nga wëy quoi Balla Seck waaw benn waaye. rapport bu Samba Mbayaan loolu dana waaw non bu Samba Mbayaan parce que bu fekkoon damaa jékki-jékki rek ñëw di di la way d'accord mën naa la Samba Mbayaan mais boo koo xamante ne moo la njëkk a jox wala moo la njëkk moo la njëkk moo la njëkk maanaam teral par exemple ku gërëmul yow gëm wax naa bi ne ma Sénégal lañ nekk Pape Malick ku gërëmul nit voilà merci xamee ko si rapport non hommage naa la bu yàgg jël naa la mais rapport bi boo xamante ni ñeneen ñeneen lay way non loolu c'est pas man dama koy def du rapport de journaliste la <laughs> chroniqueur waaw mais ñoom la faral ñoom la àndal non dëgg da nga may déglu benn yow yow da ngay définir sa bopp rappeur mais àndoo ak rappeur yi non non pas ànduma ak rappeur yi ànduma ak ñoom philosophie da nga si am ñoom mere non non ma am nañ sama ñëpp samay xarit lañ ñëpp samay nit lañ mais dama àndul ak bokkoo leen noo leen gisee c'est ça dañoo bokkul ni ñuy doxee man par exemple dib dib lan nga reproché par exemple ah. dafa am nuñ ma par exemple yow tey waaw am na rappeurs yoo xamante ne tey li ñu gëm moom mooy bu ñu tey kii lan la ma laaj sa turu artiste lu tax mu laaj ma ko mais tur lan la ci sa turu artiste yow sa papa par exemple tey bi mu lay tudd tey lan la def moom dañ ñëpp dañu toog ñun loolu lañ gëm culture boobu lañ am imaam dafa dafa ne imaam jox naa ko turu nangam rendil ma xar bi tuddee ko nangam n'est-ce mais yow boo jógee ba benn moment après nga dindi tur boobu teg ko fee mais est-ce que yow jalgati mais mais xaaral mais nga teg beneen tur. mais mais ba léegi si thème bi. na na ñu bañ a génn ci ci si si si question bi parce que. thème bi solo thème bi c'est-à-dire à travers sa album. thèmes yi ngay développer mooy mooy wone ban engagement nga am ci société mooy mooy wone aussi ban engagement nga am ci rap bi ban genre rap ngay ngay def donc on a besoin ñu xam vraiment yan thème nga développer si album bi ok c'est hmm. bon merci beaucoup donc benn bi Africa la Africa moom moo topp ci euh, Kumba euh, Kumba Kumba sama soxna la hmm. donc vraiment dafa dam benn jaayante bu mu jaayante sama diggante ak moom bon mu nekk loo xamante ne histoire bu bu bu bu bu bu bu jërëjëf. Amali doxal ma kiy junne waaye. non non mais yow sa ndax kumba bi nga wax rek après continue la.